gannaaw bu santee sunu boroom julli ci yonentam ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ngi bal xaq ñépp tey bal xaq ñépp yàlla na yàlla bari jëkkër di ndokkeel jullit yi it ci xew xew bi nga xam ne moom lañu génn yàlla na ko yàlla delloosi te fekk mu ci ak wér ak ngërëmam tom bi ñu fàttalante mooy xew-xew boobu muy guddi gi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallama amee woon teraanga joo xam ne kenn mësu koo am te kenn du ko amaatit sallallahu alayhi wa sallam muy tukki boo xam ne ab jullit war na cay jàngat yetti yëf xam ne léeg-léeg jullit bi dëgg-dëgg su fekkee mi ngi dund diineem dëgg léeg-léeg yàlla yónnee ko natt boo xam ne yàlla gën a xam waaye ñi ay moroomi jaamam di mbokk jullitam danañ xam ba xam diineem jaral na ko waaw wala déet waaye des na ca jànge it ne yàlla tëliwul dara te lam denc mu ëpp fuuf lim na wanagoon waaye des na ci jànge it lu am solo muy jullit bi di jàngat lu bari ci liy xew ci jamono di ko teg ci dundug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax tukki boobu laata muy am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa jànkoonteeg ci nite ga coono yoo xam ne mën naa dem ba dal ku ne ci nun rawati nag ñekk ko doon teg moom ku ni sañe moom du gaaw a amaat waaye saa bu nit ki nekk ci xat-xat xelam war na ca ne yar mu xam ne yonent bi ko gën fuuf gën ñéppam te teewut sonnoon na coono bu ëpp bi muy sonn te yàlla génne woon na ko ca ba mu bàyyee yàlla ak boppam ba jëkk ca tolluwaay yooya mooy am na ñoo xam ne dañu naan ñoom seen soxna bu fi bàyyi ko dutuñ takk soxna far ndax dutuñ bëgg kenn loolu nag du diine du jëfi jullit ndax kii nga xam ne moo tudd soxna Xadija doon ki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëkk dëkkal ci biir këram xool ko setantal ko moo ko jiitu sax ay at ci àdduna teggine Seydina Abbas jëfandikoo woon bañ ne ko yàgg yonent bi ku mag dane maa ko jëkk ñëw de àdduna waaye moom a mag fuuf waaye soxna si it moo jëkk a ñëw yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ay at ëpp na sax am tofa ak tofa ak tofa waaye li ko booleeg moom daf ko doon liggéeyal soxna si da doon liggéeyloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foofu des na fa jànge ne liggéey jëmbur kenn ñu di la liggéeyloo it te kala war a liggéeyloo jëmbur kenn booba doonagul nag rasulullah sallallahu alayhi wa sallam muhammad ibn abdillah la woon gis ci moom ak wóor ak doy ak fulla ak fayda lam doon doon doon jënd ak jaay ka ko doon liggéeyloo ci jaay ak jënd xamoon na ne kii kat waay la ndax soo ko ne ndax bagage bii nga indi mooy bi gën ci bagage yi danaan am na bu ko gën diwa ko yor ak seegut wala li ma ci dese de wax dëgg yàlla mënu ma la koo jaay ndax demeewut noona nit ñi dañ koo tànn ba mu des fa soo ko bëggee nag mën naa la ko jox ci tànn borom loo ko mos a dénkit bu la koy delloo na ko na nga ko banke woon nan la koy banke du ko wecc ko delloo la limba rek déedéet waaye na nga ko ko joxe woon nan la koy joxewaat kon tuddoon na Muhammad al Amin te fekk doonagul rasulullah soxna soosu nag am ak moom ab diir ci liggéey ba seetlu ko yàlla dogal seen diggante mu aar ko kem kattanam ba ci jiitu mooy bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàmbalee gis ndaw lu jóge fi suñu borom mooy sababu si yaa ayyuhal muzammil ak yaa ayyuhal muddassir ba mu ko ko waxee daf ko ne yow yàlla bu la teg dara loolu jàmm lu gudd la waaye daal ku ko taxaw la ci ay diggante yu jafe yoo xam ne nag amagutoon ku ko taxaw amatu ko woon fekk fi way juróom bu jigéen mënal ko dara fekkul way juróom bu góor sax dañuy ñëw fekk ko fi kenn kum dese woon muy Abu Talib ñu bokk ak way juróom xadi soxna Xadija daal nelaw kooka nelaw ci menn at daanaka sorewul daal soxna si demee ci moom nii xëy xëy rek suñu borom jël ko amatut wéttal benn ñi muy dal ci jamono di naan duutuñu am soxna ñoom junj naa ko léegi te fekk fa leen soxna si féete woon mën na koo waral ñu ne kenn doyatu leen dañu sëkk njàqare waaye Abu Talib mi nga xam ne moom lañ ko rusee woon kenn ñi mu wutu jëm ci moom waxuma la ay wax waaye ay jëf moom itam yàlla jël ko dëkk ba xat ci moom lool mu ne na dem fu ñuy wax ak taif soriwut ak Makka lool la fa xew di ko nettali ci ab jullit daw na yaram lool te duy teggin sax waaye coono boo xalaat rek ci doyadal nit ci jëm moom teg nañ ko ko sallallahu alayhi wa sallam waaye ca ngor ga ak gëm ga yàlla ak bëgg ga nit bëggaale mbindeef suñu borom yépp dana yàlla jéggal leen dañoo xamagut ndax ñoom ñi duñ fi sax dañuy ami sët te am mën naa am woote bi àgg seen sët ñu gëm ko te boo leen fi jëlee falay yam sallallahu alayhi wa sallam kon fa mu amoon yaakaar ne bu fa demee ñoo danañ ko làqi ñu ne ko du fi amee ndax li ngay wax xamuñu lu mu doon moo tax nit yàgg naa jaar aw yoon xamaguñ lu mu doon ndax dañoo ragal ñu bari dañoo ragal luy soppi ko soppi la fi nekkoon ñu bari dañ ko ragal ragal goo xam ne dañuy far téye sax la fi maam yi bàyyi woon ak la muy jubadi lépp donte la fi maam yi bàyyi woon la ci jub bari na lool moo tax ku gëm yàlla dëgg du faale ku koy tagg ak ku koy ŋàññ kuñ ŋàññ moom ne na ko barkeeloo ca loolee ñu tagul yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci Taayif rek diggante boobu nga xam ne ñàkk na ñee amatut fu mu jëm ci saayir loolu ku mu daloon kenn ci ñun ku nekk dana xam ne ku ñëw fekkut booy juróom muy dund booy juróom mu jigéen nelaw ba mu amee at yu néew mu am baayam bu koy taxaw mu gën a ko sax ay doomam mu koy xëy jóge fi te mën a ko dara ku ci jaar da nga xam coono boobu rawati nag dëkk ba mu yaakaaroon ne ba demee ñoom ña fa nekk ñu ko mën a yiir la ñu ko mën a aar la buñ ko yiir aaruñ ko te bàyyi ko fa mu ne jàmmit mu mën faa nekk ñu ne ko du fi amee fu mu jëm si waat fa mu jóge woon rek ndax ko xamul foo jëm da ngay dellu fa nga jóge woon boo xamee yoon wa diggante bu metti boobu nag soxla woon na lool ku mu waxal ku ko delloosi ku dalal xelam ku ko wettili waaye amu ko ndax kuréel bu néew bi mu àndal ñoo bokk lu ñuy daj daanaka rek ci la ko suñu boroom nag wooye mu dem ba fa moom ci tënk bu ñu demee ci mbindi sëriñ bi danañ ca fekk yu bari yu fi jaar ak lu mu fa amee waaye la ci gën a ràññiku daal mooy ba mu àggee yàlla xamal na ko ne ko bu la waa suuf defee nii ñu la defit waa kaw a ngi nii ñoom dañ ne woon ngéej nga ñëw ci ñoom yàkkal de ko la bu fekkee it danga àndoon ak njàqare ak tiitaange ak jaaxle ba xamatoo foo jëm gis nga fii li fi nekk mu ëpp fuuf li na ci kaw suuf ñi fi nekk gën a bari te ñoom ñëpp kenn ku ci nekk bëgg na laa laal wala nga xool ko képp sa bëti yërmande ji kon na sam xel na sam xel dal moo tax tolluwaay boobu saa bu ab jullit doxee ab diir ñu ne ko guddi gi la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam demoon wuy ji woote suñu borom te fekk ñu ngi ci kaw suuf di dund na delloo xelam ci ne faaw yàlla di nattu ab jullit nattu gi ko yàlla nattu bu duhur ne bu ko yàlla nattu du xam lim fas dëgg-dëgg waaye mbokk jullitam yi war nañoo mën a jël si moom bindu lu nuyoo tàggoona ak lu metti metti rawati nag koo xam ne sa tànk fa nga ko teg yàlla la ko fa teg lool waaye it junj naa ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis na ca lu bari lu yàlla denc loo xam ne lim denc ëpp foofu lim wane gis na fa lu bari daana fa gis na fa dund adduna ba ba muy tukki rek ak fa nit ñi mujj ak li yàlla bind lépp fa muy mujj ci diir bu gàtt waaye buñ ko mënee tënk teraanga joo xam ne ay jëf la nit ku nekk war na koo xool diggante ak boromam ndax bokk yi kenn ku nekk bu xoolee dana gis lu mu tanee keneen kuy ñëw di ko sàkku ci moom ndimbal dana gis ci jëmmam lu nit ñi bëgg a doon ku ne ku ne ku nekk ne siiw doon ko loole nag bu mu ko yàq teraanga jooju na ko sàmm xam ne defalul yàlla loo ko jàll waaye coobare suñu mën a dox ci moom su dee ku sakk ci moom ndimbal lu man kem kàttanam mu xam ne teraanga ju ko yàlla jox la mu war koo jàllale su fekkee am nag wér bu mu tax muy wax yenn wala mu di ko def ndax am na ñoo xam ne dañ ne siiw amu si wér ko duggoon ci ab fajukaay fekk fa ñaar ñuy jàmbat mu bew lool kii di dindi naan ay waji su wéroon ba mën a lekk kii naan ay waji su amoon lu mu lekk ba wér kenn ku ne am na dox digganteem ak la mu bëgg kii daa bëgg a wér ba lekk ndax bëgg naa lekk waaye amutu wéram kii am nag wéram waaye amut lu mu lekk ñaar ñooñu nag ñoo fi nekk ku yàlla teral musal ko ci yaar yëpp mu am lu mu lekk amug wér nga xam ne am na teraanga yàlla séq ak moom buñ ko mënee wax sax loxo ak loxo ndax lu sut dañ koo jàll moo tax tukki boobu ab jullit war na koy jàngat ak i tolluwaayam bañ a naagu ci ne yàlla da koo fàtte wala li ko yàlla sédd ci ay métit sédd ko kenn axakay jikkoon na ko sédd koo xam ne moo ko gën gën ay bokkam woote boobu nag am na lu ci feeñaat ci pas-pas bu dëgër ak gëm ak topp gëm yàlla lañ koy def waaye topp ka nga war a topp bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam demee ba ñëw dem ci pénc ma tàmbali ko leeral fa mu demoon biig ak lam fa gis ñu bari seen pas-pas da caa doxe yàqu dañ ne kii loolu dana ko wax nag li muy wax ëpp na jóge fii ci guddi gi dem foo xam ne doxut weer lu mu néew ne dana ko mat weer su ko jàll ñëwaat ñëw waxtu wi ñooñu bu ñu fekkee woon diggante bi fafal naaw di daw ci ci ci guddi ëpp na lool ëpp na doxu beer fafal naaw li muy dem ci benn nit jóge dëkk ak dëkk mu naaw mën naa ëpp doxu beer kon ñun yom loolu yomb naa wax ci ñun lool waaye Seydina Abu Bakar keroog bis bi muy am as-Siddiq garaat boobu dañ ko ne sa waaja waxati na yàlla ko yónni di wax yu kenn xamutoo ñu ne déetawaay mu ne dem na barab sàngam ci guddi gi weesu na ko gis na fa lii gis na fa laa ñëw mu ne moo ko wax ci làmmiñam ñu ne waaw mu ne wax na dëgg ñu baree bari ne dangeen a dangeen cee juboo dangeen a gise mën nañoo gise comme li xew ci suñu jamono rek saa bu wax jibee kenn ku nekk firee ko ak na mu ko déggee boo wëttuwut boo sàggantu man jort naa ne yaakaar naa ne gis naa ne pour man am ku ne ca tonet ca mbooloo ma ne man de dëkk bi ngay wax ne dem nga fa xam naa ko nag waaw mbedd ya nuñ mel mu wax lépp daa tàmbalee lim mu ne ko wax nga dëgg mbedd sàngam moom moo moo di sàngam ñoo daje fi barab sàngam moom commerce sàngam moo fa nekk fee am na pénc fee am na nangam fee am na nangam mu ne leen sax loolu bu ngeen ko weddee am na seen njëg muy ñëw riir mi ma àndaloon am na ci gëléem goog riir maa ko tiirloo mu daw ñëwee njëg mu suñ ñëwee laaj leen ko njëg mu dana fi agsi bi sàngam su fekkee taxawul mbooloo mi xaaj ñaari xaaj ñenn ñi ne Abu Bakar moom xam naa ko wóolu naa ko lu mu wax ca laa ànd ma ñenn ñi moom doxee fa nangi faawoo far waaye tukki mboob tax na aw nit mooy diine bu dëgër ba ca lañ doxe ànd ak moom fu mu teg seen tànk ñu teg fa seen tànk fu mu teg tànkam bu tedd ba ñu teg fa seen tànk ba mu fa jógee it ca la lislaam tàmbalee dunde kon du tukki yi ñu tukki nii rek kese kese kese am na lu mu ëndaale doonte ministre lim lépp ci benn jataay waaye daal ba mu fa jógee di wër ca la ab aw nit jógee Madina jooyoog moom Yasrib yaa ahla Yasriba la tuddoon bu njëkk ñooy leen soriwut ba mu ñëwee ba wax leen lam jële ci tukki ba ñooña bañ demee lañ yóbbaale loola yor pas-pas bu dëgër moo tax ba muy wër fu mu dem gannaaw bu mu ñëwee Afrique ba noppi ñu fàttali ne Afrique yàlla teral na leen buñ xamee seen bopp bi yonent bi tolloo ci xat-xat yooyu sallallahu alayhi wa sallam ñuy jàpp gaa yi par benn di leen buggal ñenn ñi seen bakkan des ca dana leen dem leen Habasha mooy Éthiopie fi mu ne Éthiopie ci Afrique la bokk ñu ñëw la fa dëkk ni ñuul doy naa sant yàlla kon nit ku ñuul yonent bi xalaatoon na ko ci sowe ay jullit waruñoo ñee kenn fi la aw nit jëkk ñëw gàddaay jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir làq si ak seen pas-pas waaye te suñu yaakaar amit nag ndax dalal nañ ko ba bañ ba mu soob leen ñu dem sallallahu alayhi wa sallam ña ñëwoon Madina nag jóge Madina ba fa yonent ba ba ñibbee ba yonent bi gaaral mais am na ndigalul génn xam fu muy jëm nag te lañ ne ko ñëwal waaye ca la lislaam amee ab dëkk am capital tàmbalee wasaaroo ci adduna bi ba dellusiwaat Afrique géem gii gii nga xam ne làqoon nañ ko bés te kat bokk yi bu ñu ko dee seet lislaam dëgg-dëgg joo xam ne kii jëflante ak yow bu jëflante ak yow danaan yàlla laa ci bàyyi xel ku ko xoole feneen fu dul Afrique doo ko gis benn boroom xam-xam Cheikh Ahmed Tijani doon na wax ne yàlla bu ko diine Sénégal doyut waxin la day yeete lim fi am dana jafe feneen kon boo tukki la boo xam ne njàngatum kese la sëriñ bu doon boo xam ne ci lislaam tàmbalee dox ndax ñii dañ ne déet ñii ne waaw ñene woon waaw nag ba fi mu toll nii ñoom la ñuy waxtaane waaye ñene woon déet xam ca ay tur sax du yomb waxuma la seenu njaboot donte njaboot ga mën nañoo demaat ba duggaat ci biir diina ji ndax diina ji am na doole léegi gën a yaatu kon tukki baa ngu noonu jullit bi saa bu ñu ne yonent bi waxoon na defoon na na ne teg xool moom fu mu toll ci yonent bi fu ko yonent bi toll su boobaa jàmmay xew yàlla noonu yàlla dafa dëgg topp ci mu suñ seytaane ki pakkam يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين